ay fenkat la ñoom ñëpp te ñoom ñëpp laa xam ñoom ñëpp ku nekk tëgg naa ak ñu ak yow. Mm-hmm. ñoom ñëpp laa xam et non pas intérêt ma wax loolu moom xam naa xam naa ko. waaw ils n'ont pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoolal attends dinaa foto benn benn liste ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. su ma su ma su ma la ko waxee sa je vois pas mon croire. déedéet ay doomu aadama moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite gamine lañ nekkal boo xamante ne xamul dara def la et tout ça te xamul ne lépp lu ñuy def xam naa ko dama leen bàyyi ci biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqare dafa jot ci taabal nga ne leen yaa ngi may dégg. attends attends moi je moi ces ces ces ces gens là xaw ma ay nitu lan lañ. ya ya ya ya ya yaa Farba Ngom Zoss ya ma ko yaa Mor Ngom. Mor ya xam naa ya ya ya ya ya leen. waaw yaa Amit ya Niass. moo yaa yaa yaa yaa ya Farba Ngom ya Mambo Diaw ya Mambo Diaw on s'est ya Antoine Diop ya ministre des finances ADD. Et il y a, je sais, non, le ministre de la Finance, je ne sais pas, M. Diop, je ne sais pas. Il y a Pape Samba Diop, mm, Peter Ladjouf, commandant Bribofan, il y a Bougan Gaitani, il y a Maître Abdou euh, il y a Maître Abdou, Djeila Nikan, il y a Maman Diallo, il y a Kriko Abdoumo il y a Ali Gouilay, Pape Samba

suñ la bëggee sànq wala ñu bëgg laa rey man xam naa ne suñu mujjee ak yow dañ lay bëgg a rey. Ah mun nañ laa mun nañ laa pikir pikir boo xam ne di nga dem trois mois deux mois nga jaaree fa faatu mun nañ la def leneen ak leneen te man dama am intérêt pour sàmm la parce que amoo benn mbokk tey man maa fi sa mbokk parce que sa papa xamul àddina bi amul doole xamul àddina bi lu muy lu muy riir sa yaay génn na àddina sa frère ci man la nek ndax man la yaakar aduna ak àllaaxira te xamuñ àdduna nu muy def kon kenn nga am ku jàmbaarte koo xam mun na la garde mun na laa jàppale moy man dafa am ñuy ñew ma bayila la kon après ñu oo tonto gis nga bugan mu ngi liggéey ak ñoom ci suuf gis nga lool waaw ba pare ba pare melni kuy kuy contre au pouvoir fekk ñu ngi liggéey ak ñoom ci suuf contre que le mec saa yu demee point muy am yëpp waaw oui. moom it doon donné day liggéey. day def liggéeyam. nu waree ñoom ko ay complices lobby la lobby ci biir lobby yi. ñu ngi noonu. ñun hmm. ñu ay doomu xaram moo tax ma ne xam naa lu bëri te des fois dama leen koy wax. Hmm. j'en sais trop xam naa lu bëri. mu ngi noonu nag léegi nag loolu nga xam. yow da ngay nekk innocent ci kanam seen kanam waaye léegi-léegi tëggal taabal loolu loolu loolu loolu laay joué te pourtant ci innocent boobu na ci lay doon jàppee ma dof na ku nekk di ñëw ku nekk di ma bàyyi leen mais ñii def seen carte sur table jeex na ah. lépp ñii ñii ñii lu ñu doon def yëpp jeex na parce que suñu léegi on va jouer carte sur table léegi suñ xamee ne yow amatul amatul amatul loolu amatul neexal amatul ay neexal nekk fi di yaru yaru wala di wane ne dama yaru wala innocent alors que loolu yëpp gëwuma si dara benn doomam ah dañuy jël nit ñi. am ah, bi dox comme ñoom ñoom ñoom ñëpp dañ ñëpp a yem. Aziz ma ne la ay ay affaire yaru yaru fii nekk nag mel ni ko naa ba dëkk loolu yooyu laay bàyyi dootuma ko defati dootuma ko defati kenn. Ah, xam naa ñoom ñëpp te ñoom ñëpp laa xam ñoom ñëpp ku nekk tàgg naa ak ñu ak yow. Mhm. ñëpp laa xam ils n'ont pas intérêt ma wax loolu moom xam naa xam naa ko. ils n'ont pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoolal attends dinaa foto benn benn liste ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. oui non non suma suma suma suma la ko waxee sax je vois pas moo croire lii de du ay doomu aadama moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite gamine lañ nekkal boo xamante ne xamul dara def la et tout ça te xamul ne lépp lu ñuy def xam naa ko dama leen bàyyi ci biir rek mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag dañ xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqare dafa jot ci taabal nga ne leen yaa ngi may dégg attends attends moi moi ces eh, ces ces gens-là xaw ay nitu lan lañ bon yaa yaa yaa ko yaa Mor Ngom. xam naa ko Farba xam naa leen. waaw yaa Amit Khalifa. bon yaa yaa yaa ko yaa Mor Ngom. xam naa ko Farba xam naa leen. waaw yaa Amit Khalifa Niass. yaa Mambo Diaw Il y a Diallo, on s'est donné Il y a Antoine Diop. Il y a le ministre des Finances ADD. Et il y a, je sais, non, non, le ministre de la je ne sais pas, M. Diop, je ne sais pas. Il y a Pape Samba Diop. Peter Ladjouf, commandant Bribofan, il y a Bougan Gaitani, il y a Maître Abdou il y a Maître Abdou Djeilani Kan il y a Maman Diallo, il y a Kriko Abdoumbo, il y a Ali comme Pape Samba Diop.

suñ la bëggee sànq wala ñu bëgg laa rey man xam naa ne suñu mujjee ak yow dañ lay bëgg a rey. Ah mun nañ laa mun nañ laa pikir pikir boo xam ne di dem trois mois deux mois nga jaaree fa faatu mun nañ la def leneen ak leneen te man dama am intérêt pour sàmm la parce que amoo benn mbokk tey man maa fi sa mbokk parce que sa papa xamul àddina bi amul doole xamul àddina bi lu muy lu muy sa yaay génn na àddina sa frère ci man la nekk ndax man la yaakaar àdduna ak àllaaxira te xamuñ àdduna nu muy demee kon kenn nga am ku koo xam ne mun na laa garder mun na laa jàppale mooy man dafa am ñuy ñëw ma bàyyi la kon après ñu gis nga bugaan mu ngi liggéey ak ñoom ci suuf gis nga lool ah, waaw ba pare ba pare mel ni kuy kuy contre euh, pouvoir ko le mec saa yu demee point am yëpp da koy waaw oui. on est donné des raisons pour que mu liggéey day liggéey day def liggéeyam. nu waree ñoom ñoo ko ay compliqué. lobby la la ci biir lobby yi. ñu ngi noonu. Hmm, ñun ñu ay doom xaram moo tax ma ne xam naa lu bëri te des fois dama leen koy wax. Hmm. j'en sais trop xam naa lu bëri. mu ngi noonu nag léegi nag loolu nga xam. yow da ngay nekk innocent ci kanam seen kanam waaye léegi-léegi fëggal taabal loolu loolu loolu loolu laay joué te pourtant si innocent boobu la ci laay doon jàppee ma def na ku nekk di ñëw ku nekk di ma bàyyi leen